internet ñi topp ci Dakar live allo Sénégal Dakar people ñu ngi leen di bu baax di leen ziar alors tey nag ñi ngi toog ak ki nga xamante ni euh, moom mooy suñu père Ñoxo Baay tey ñu dalal ko li waral ñu dalal ko nag euh, génnub àdduna euh, père Gaston Mbengue ñu koy ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko te xaaree ko aljana am lu mu def ci làmb am lu mu ci wane am leneen loo xamante ni ay révolution la te moom moo ko génnee moom Gaston Mbengue tey bu ñu dalalee ñoxabaay jàpp naa ni du ngeen laaj lan moo ko waral ndax dafay yëngu acteur la ci wàllu làmb dama koy nuyu bu ko defee ñu door li nga xam ne moom mooy waxtaan bi Père Niokhobaye maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay di wax rek ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey làmb ña ñàkk na doomu aadama boo xam ne kon la ci biir làmb nit ku baax koo xam ne 30 ans yi mu def ci làmb maa ànd moom ba mu tëdd maa ànd moom 30 ans yëpp maa maa maa yor microcentral kon tey lamb ñàkkat na koo xam ne tey tey bu lamb révolutionné ba ba ëgsi bi tey mu ëgsi grâce à Gaston Mbengue parce que bi muy jëlee alalam di ko dugal ci biir lamb ji kenn foogul woon ne lamb dina ëgsi fii mu ëgsi kon dañ koy ñaanal yàlla yàlla bu ko ca yiti ci bàmmeel waaye daal wax ne Sénégal ñàkk na tey nit ku dëggu nit koo xam ne kenn du ko nettali Gaston boo ko nettalee benn affaire ne ko ñoo ko bàyyi nee na nangam nangam du la wax dara day bàyyi ba mu ñëw toog yow ma ko waxoon mu woola ne la li nga doon wax ci ñoo ko bàyyi wax ko léegi kon doomu aadama bu dëggoon woon a noonu Euh, nekk itam doomu aadama bu daal dimbalee parce que dimbalee dafa am solo kii la war a euh, dimbali bu la dimbaliwul boo réeree moo la sànq kenn sànq la Gaston nag euh, te it meram du am cinq minutes bu la bu bu ngeen jàppante léegi nga mer mu mer cinq minutes du ko am lu newoon ci jeex nekkoon responsable nag ak euh, mën a taxaw nitam mën a euh, teew ci bésu nitam mën a jàppale nitam mën a def lu baax ci nitam kon kooku tey la senegal ñàkk euh, muy doon nag sama digganteeg moom man dem na ba ànd naak moom kër maam Anta magam fële ca Mermoz mu ànd ak man ba ci salle man moom na Ndiaye ñu taxaw ci digg salle bi mu taxaw ci digg salle bi géwél yëpp toog na le booba ñoom Soda Mama ñoom Xaar Mbay ma jaaga ñoom Kinelaam ñëpp a ngi taxaw mu daal ne eh Kumba Gay Ngom mu ne ko mu ne ko ñoo bàyyi mi ma la doon wax a ngi nii kii laa lay may ah, maam Anta di wàcc ci escalier yi ne ko Gaston ñun sunu papa géwél bu mu mas a àndal may na ko jabar gason fi mu taxaw la wagasu génn fukki junni ne dem leen jënd ci guro ñu boole ko ci may gi keroog lañ ma may femme boobu may ma ko ba set mu woo ma woo femme bi génne un million de francs na ma ñoxo bàyyi dama la may jabar mi ngi nii ma ne ko joxal femme bi bu tee mu jox ko femme bi ma ne ko loo yor ni mu ne ma million la ma ne ko tuddul million de mu ne ma nu mu tudd ma ne ko meloo woon nii la tudd ku ko yor changé million tuddul million meloo woon nii noonu la million tudd ma ne ko bëgguma ci un franc sa jëmm ji ngay sama ngay euh, sama nawle ñu ñëw may ma la nii gratuitement xëy jox ma xaalis bu toll nii ñaar fukki dërëm duma ko ci yóbbu sama kër xam nga lu ma bëgg mu naa ma ne ko jëlal million bi nga yóbbu sa kër boo demee lu fa màggatoon lu ne nga nga nga def ko mu bees ba ñu xam ne kër gi meloo melul woon nii bala ma faa fanaan femme bi denc naa ko vingt 21 naa ci ren 21 naa ci ren 2002 la ma Gaston defal loolu kon ku mel noonu bu génne àdduna ma ànd ak moom 30 ans war naa war a mën a jël kaddu jaal ko àdduna bépp waaye vive les réseaux sociaux li tax ma di ko wax mooy euh, lamb bu njëkk paw dof lañ ko tegoon ñun man ak Ipo bi ñuy dem lamb dañ daan wax nag xoolal seer yi di dem lamb te booba gaay yëpp football la ñuy dem mais dafa am benn proverbe bu wax ne il faut s'enraciner avant de s'ouvrir ndax la clé de la connaissance d'autrui et la connaissance de soi-même lamb adala ak cosaan bi ñu fi bàyyi boo wëree adduna bépp bëre ak dóor amul fenn fenn fenn fenn ci adduna fu dul Sénégal takoo gant takoo dara léewtoo dóor sa morom ci bët bët ba neewi wala nga dóor ko ci ci gémmiñ bañ ba damm Sénégal rek la am léegi sa làmb changé nañ ci lu bari mais bu njëkk dafa amoon matt bu njëkk da nga daan matt nit bu njëkk da nga daan bëkk nit bu njëkk euh, euh, da nga daan daan nit ba pare sex nopp bi matt ko yóbbaale nopp boobu ci sengoor gi ngay tàllal nga daan roof nopp nopp ñaata nopp nga dagg loolu dafa daan am ci làmb mais bravo docteur Alioune Sarr ñëw dindi lépp lépp lépp lépp eh, seetu yeeg béjjën yeeg paaka yeeg danga daan wax ak nit léegi bu ko nit bu ko masaan daan toog ba ceeb mu ne xaaral ma toj làmb ji ne roset paaka ah bu ko defee bu xeexee fële ñu seen paaka yi làmb ji day daal di toj loolu lépp docteur Alioune Sarr ko dindi ci làmb waaye nag Gaston Mbengue nekk na nit koo xam ne képp ku xam Gaston képp ko ànd ak Gaston mënoon ne Gaston dafa lu ma dara ñun ñëpp nag communicateur traditionnel yëpp kerook bi muy mayee doom bi fii maam Anta dafa génne cinq cent mille francs dan ne ana géwél yi ñoom Garmeek ñoom Lamine Thiam ak ñoom Bekaay Mbay ñëpp a ngi taxoon ñu ne ko géwél yaa ngi nii mu ne ana ñoo ko bàyyi mu ne ko maa ngi nii mu ne ma cinq cent mille a ngi nii yéen géwél yi la mais sa loxo laa koy teg loolu doy na quoi euh, may wax nag makan ne doomu aadama euh, doon sa baay yomb na mais doon sa baay moo jafe doon sa baay sa baay dee nga jël euh, héritier ba mu ba mu la bàyyil muy ay étage muy ay xaalis xaalis muy ay oto loolu c'est très facile mais doon doon sa baay moo jafe Makan nag doon baayam la war a la war a nekkee parce que baayam jàngal na ko won na ko tey it lii Makan ji say xam na ne du hasard parce que nit ñëpp bàyyi nañ seen soxla bàyyi seen i itte bàyyi seen liggéey dikk ko gunge Gaston ba dernière demeure am doomu aadama bu ne nag nay sóoraale loolu nay sóoraale loolu étage am na solo xaalis bi am na solo or bi am na solo ndax mooy sutura doomu adama waaye diggante biñ lay denc muy ñaari xasab ñaari xasab rek la te lu mu xat-xat nga dugg fa ñaari xasab mooy mooy mooy mooy euh, euh, titre foncier doomu adama titre foncier amul àddina titre foncier yombal xeyam rek la nekk foo xam ne buñ la fa foncé dootoo génn foofu mooy titre foncier te ñaari xasab la nañ ci bàyyi xel bu baax boo dee di minti milliardaire kenn du la sànge jasinaire kenn du la jànge sange tergal perkal bi ñu sange euh, miskin mi moom lañ lay sange loo mën a mën a solu di sol ay costume yi trois cent mille cinq cent mille boo dee sept mille francs moo lay wodd kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax di ñaanal makan nag li papaam def ci làmb mu def ci làmb lu ko parce que yaayam baax na ndey maram kenn gënu ko nday Marème Wade mii jur makan nit ku yàlla baaxal la nday aw mi nga xam ne itam mooy wujju euh, euh, euh, nday nday Marème amuñu problème ñoom ñaar parce que Gaston dafay nit ku direct digganteem ak njabootam ay jabaram jamuñu ko digganteem ak ay doomam ay doomam jamuñu ko parce que kenn ku ci ne wutal na la loo xam ne mën nga caa jariñu suturlu ci ba keroog la fi yàlla jëlee solo ci sa tàmbali nga ne euh, ki nga xamante ni moom mooy Gaston Mbengue dund ngeen fanweeri at fanweeri at sax wala lu teg euh, fanweeri at téewal nga ko micro central ci làmb yi nga xamante ni daf koy tëgg alors est-ce que am na tey jafe-jafe boo xam ne dund nga ko à part soxna si nga xamante ni wax nga ni moo la ko may te Gaston taxawu la ci. Gaston dund ma ak moom benn jafe-jafe parce que même man bu ma masaana mer bu meree juróomi minute affaire yi jeex juróomi minute. jàppante bu ñu mujjee jàppante fii man ak moom euh, ci làmb ji euh, papa alaaji papa Dieng moo taal oto mu andi ma ba ci moom mais damaa ñëw rek mu laxasuma euh, alaaji papa Dieng ne ma nday mareem mii ku baax la bi nga jàppante Gaston ba nga ni saa yu Gaston ayee ci moom daf ko naan koo ma sa xuloon ñoo ko bàyyee ma ci ñoo ko bàyyee ma ci gën a metti kon jigéen ju baax même bu jëkkëram dafee naka sudul noonu ah dafay seet la nga xam ne mooy dëgg mu wax ko Gaston daal euh, motion am benn parce que euh, maag Hippo ñoo yoroon micro central bi mais daana ma defal lu mu defalul ipo parce que tam bu ma ñëwee ci lamb ji dama naan eh Hippo toppal ci ginnaaw ñoo ko la koy wax buy joxe xaalis itam bu génnee deux cent mille dama naan jëlal cent cinquante mille jox IPOS cinquante mil dama daan wax ne ma eh, eh, man doo sama géwél sama goronga kon ku mel noonu daal buñ ko ñàkkee ñàkk nañ tey ku ku baax. mooy ki nga xamante ne moom mooy Gaston Mbengue maanaam dafa xaw a naxari deret loolu bokk na ci li ko yóbbee mu daan gaaw a mer ndax bañ ko ko yab. gis nañu récemment lu xewoon ci digganteem ak Père Bécaye mbay gis nañ xewoon ci digganteem ak Luc Nicolas muy euh, benn réeroo bu doxoon ci seen diggante am ñu ne sax euh, peut-être dafa naqari deret moo waral coow yi di dox ci seen diggante ba muy doog ak nit ba Gaston naqariwul deret dafa tàng dafa tàng euh, te moom li ko expérience am ak mémoire am jox rek ci loolu lay fixé bu da ngay wax wax sa wax ba du aay mais moom peut-être mu jëlee ko noo xam ne da ngay waaru mais bu bu amee cinq minutes jeex na ci moom te yaa ngi seen bekkaay yaa ngi may seen yaa ngi seen keneen te kenn ku ci nekk waaw te ku ci nekk rek am na fu mu jaar ak yow waaye moo tax daal dañuy wax ne yàlla na ko malayka mi yërmande teeru yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel parce que doomu aadama dina génn àdduna nga ne mu nga àjjana yàlla ne ah bon yow yaa moom àjjana xaaral ma débier ko débier ko yóbbu ko feneen pour kii moo tax ñaanal ko cet bañ koy jiite ci bàmmeel lu am solo la ñu ngi koy jàll Sénégal gépp di ko jàll le président de la République parce que fi mu ne jo Bassirou Diomaye mooy yilif réew mi amul kenn ku yilif réew mi ku dul Bassirou Diomaye ba pare nag ñuy ay xale loolu itam bëgg naa cee euh, euh, def message boo xam ne Sénégal gépp dañ ko dégg ñun Lamine Gueye ak Senghor fi la ñu fekk ñun fi la ñu Abdou fekk ñun fi la ñu Ablaye Wade fekk ñun fi la ñu Macky Sall fekk waaye réew mi 63 ans ñu nekk ci galère parce que boo dee xool danga naan nga naan Ablaye Wade li bi mu nekkee de d'état li mu liggéey ci réew parce que projet yëpp projet Ablaye Wade la Ablaye Wade li mu liggéey ci réew mi benn président de la République bu fi mas a jaar liggéeyoo ko kon tey xale yi bu ñu fippoo di suñuy doom di suñuy jarbaat ba ñu jox leen réew mi ñun mag ñii ñoo war a tax suñ dikk bu mu dëgër ñu jàppale xale yi parce que changement dina am de mm. changement dina am par force par force parce que xale yi jóg war a redresser réew mi waaye lu fukk war a lekk bu ko kenn lekkee topp mais mën na ko def biirub tañ oh. wala mu def ko biir buy daw te it niñ fi nekk woon gaaduwul du yoon mm. yow yaay am man maay am kon buñ dañ naroon a rek ci ñiy ñàkk dëkk ci ñàkk ñiy am dëkk ci am léegi nag loolu la booy dindi teg fële xale yi dañu fas yéene redressé réew mi man day bokk naa ci ñuy jàppale le président de la république bokk naa ci ñuy jàppale Ousmane Sonko parce que ay xale lañu jël réew mi fas yéene yóbbu réew mi fu réew mi àgguloon parce que Sénégal boo degee ñu ne réewum teraanga la euh, du len lu dul baax ak nga dikk ñu jox la mag ñi dañ la daan jox nga lekk ba rek boo gisee sunu mbokki lebu yi euh, bravo ñoom tey bu ndakaaru yaatoo ñoom ñoo ko yaatal léegi la buntu kër am mais buntu kër amuloon buntu sarale moo amoon buntu bii da nga ciy dagg buntu mu dugg ci kër gële kër gële dagg buntu mu dugg ci kër gële xamalu ko man ñi defee woon boo nee sarax ci kër fekk leen ñuy xéewul ñu ne la bisimilah nga ñëw lekk boo guddee boo duggee ci kër ñu ne la kaay fanaan fii boo fa yàggee ñu jël seen doom wala seen jarbat may la bu réew mu yaatoo lébu yee ko yaatal euh, loola amoon nag moom la xale yi del si delloo si waat xale yi li ñuy delloo si waat mooy kenn ku ci ne yëg sa bopp ci réew mi gis sa bopp ci réew mi waaye liggéey réew mi parce que un bon sénégalais du wax lan lan la ma réew mi liggéeyal mais danaan lii laa liggéeyal réew mi ñu ngi leen di sant nag di leen ñaanal yàlla Ah, di wax ne ñun ñëpp surtout yéen ndaw ñi da ngeen a dajeeg jamono joo xam ne ku amul bokkoo boo yorul dara boo bokkee ci famille sax kon teguñ la dara dina xew ci famille bi kenn du la ko yëgal mu am am rek moo nekk léegi waaw kon comme que àdduna boobu ngeen dajal léegi réew mi ñu jël ko jox ko ay xale yu ndaw ñun mag ñi nañ ci jàpp pour xay xale yi réussir seen mission ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla jàppale leen sàmm leen di jaal àdduna bépp nag rawatina waa diaspora bi Gaston fu ne la daan dem États-Unis ak France ak la gason dem euh, euh, ndax làmb kon ku mel noonu tey bu ko làmb ñàkkee ñu ngi koy jàll le nouveau ministre euh, des sports di ko jàll waa CNG di ko jàll mbokki promoteur am yi ah jiital ci Luc Nicolaï ak Pape Abdou Fall ak Assane Ndiaye ak Jambar production ñoom ñëpp ak Dieye production di ko jàll Abdoulaat Ndiaye parce que Abdoulaat Gaston moo ko xëcceel boppam di ko boole koog Makan combat bu Makan taxawal rek Abdoulaat Ndiaye ko taxawal kon ñu ngi leen di sant. Euh, Père Gaston dañ ko mës a dégg mu toog ci plateau ne euh, indi na doomam muy Makan pour dugal ko ci biir làmb moom nag li mu doon wax mooy ñi nga xamante ni vraiment dañuy yëngu ci wàll mystique ak yi ni mel euh, doomam bi maanaam daf ko aar lépp. kon tey bu fekkee dañoo jug sax ngir liggéey ko du jàpp ak ni mel mu mel ni dafa mës a dund euh, liggéey bu ñu ko def ci yaramam quand même tax mu doon xupp ñi nga xamante ni peut-être ñoom la jaarale woon ak foofu ak ni mel tey lan ngay wax ci kàddu bari na loolu loolu man dund naa ko Gaston Gaston lu ne def nañ ko ko ci biir làmb lu ne sànni nañ ko Gaston ci biir làmb sa doom nag boo ko dee dugal ci mbir da nga koy aar parce que ji nga tul boo déggee ñu naan boo jamee ni du dugg tul li muy am am solo ci paaka tul ci làmmiñ ko ëpp solo am na doomu adama yoo xam ne làmmiñ seen làmmiñ lu ñu wax mu yàqu am na doomu adama yoo xam ne seen bët lu ñu xool mu yàqu loolu nag boo ko tulee sa digganteek ak doomu aadama yi dangay ngay daal di xam fi nga jëm. maanaam bari na yàgg na. mbër yi sax dañ koy liggéey pour mu tëgal leen combat ah mbër yi sax da ngay gis mbër mu ci jóg jàppal ma Gaston pour mu tëgg ma mais yooyu yëpp nag bu dajee ci doomu adama doomu adama da ngay waaru moo tax daal euh, ñu ngi koy jàll Sénégal gépp di ko jàll waa jas diaspora bi gis euh, axlu làmb bi yëpp dañu ñëpp ñu ñëw teew fi nga xamante ne mooy kër suñu kër papa Père Gaston Mbengue mu mel ne du ma ne fay nañ naar bi xoromam sax mais Père Gaston dañ ko gisoon mu nekkoon ci làmb doon innové ndax boo xoolee combat Modou Lo ak Balla Gaye na ci mu nekk combat boo xam ne combat bu am ampleur la tey noo gisee tey ahlu xam ne ñëw nañ fi nga xam mooy kër dañoo delloo buum ca booy booy ba rek dañoo fay bor rek ba Gaston mu cee seetaan kenn commencé ko ci man mi micro central promoteur yi boo gisee Abdou Aziz Ndiaye léegi juróom-ñaari nag la indi waaw barki démb bi Gaston bi bi Serigne Modou dee ñetti nag la Gaston yónnee foofu dimanche bii passé bërki démb la euh, euh, la doon delloo njukkal Gaston la doon delloo njukkal euh, Serigne Modou Niang doomi Serigne Modou Niang defar kurus en or yónnee ko ko loolu dimanche altine talaata àllarba nga dem fekk Serigne Modou Niang kon nañuy prévoir suñu bop kon ma ñun sax ñun ñuy wax sax dañuy liggéey. waaw ñun ñuy wax sax dañ lay jàpp parce que loo yor am na ku ko bëgg a foqat sa loxo pour yor ko waaw ñi bëgg ñi bëgg micro central ëpp nañu cent barki Rasoulaay lu ne lañ may def ci làmb waaw lu ne man mii micro nga xam ne fayuma kenn joxuma kenn man lu ma fa jëlee laay seet ah sega man la ñuy jàpp ak ah, sama kiy jox. dafa bi dafa tàmbalee ci kott bi ko sànni woon est-ce que loolu. dafa rax. feebar bi dafa rax dafa rax doo doo am boo wut bàkkaar nag pour naan ni da ko def waaye feebar bi rax na de bu fekkoon ne lu tubaab di faj la ba mu demee France faj nañ ko waaye eh, dañ ko bàyyi mu ñibbisi kon feebar bi dafa am lu mu àndaloon ah mais mais eh, eh, ji nga sëriñ si lu ñu wax ci nit rek dëgg la mm. waaw man sànni nañ ma fi kot bu fekkoon ne du woon yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba mi ma yaakaar xaadim rasul ak sama wasila ma ma seeti yoon parce que euh, heureusement dañ ma ko sànni sama yaram wépp di metti ñu wax sama yaram di def ay ay ay ay ay ay ndox lu mel ni ndoxu si lale kii di def ay bouton da bu dama daan sol ay gants ay gants am na ñu bari ñoo xam ne seetaan nañ coow li coow li bi ma daan def des bi dama daan takk ay gants noonu laay takk sole ay kawas mais keroog bi ma euh, sama jabar ne ma dama dama lay yóbbu Casamance ñu dindi corde bi dama ne ko nañ dem Touba ñu dem Touba surtout Serigne Fallou boobu sama Serigne Cheikh Abdou Mbacké mu Alaaji Baara mu seriñ fal Fallilou dugg naa ba ci salle bi ànd ak sama jabar mu ne sama jabar ana ñoxo mu ne ko ñoxo ngi nii toog mu ne ko déedéet hmm? ñoxo ngi nii toog mu ne ko déedéet mais bi ma bi ma nuyoon teg moom mu ne ma lii la ma ne ko dafa dafa woo ñetti taalibe ne diw bindal ma nangam yow bindal ma nangam bindal ma nangam ñu yëgal ma ci kaw terrasse bi ci kaw euh, euh, euh, ma sangoo ko mais bi ma xëyee daf ma yebal ci benn bambara bi ma dikkee ci bambara bi dama ko nuyu mu ne ma sumeekul ma sumeekul ñi nga sama biir bi dafa def nii ba pare leer nañ di melax barke Rasulaay bi ma dikkee sëriñ bi daf ma xool dal na ma la waaye nit moo soxor mais yow yaa am sens ma ne ko ah, mu ne ma ji nga affaire bi ma ne ko ah, mu ne man mënu ma koo dindi ah? man mënu ma koo dindi mais da nga am sens sama papa ca Mali la ne moom mooy dindi lii hmm. mais fan yi daf fi ñëw gànna si ma mi ngi ci biir xaaral ma woo ko xoolal affaire boobu bi paa bi génnee bi mu xoolee sama biir daf ne la ilaha illallah moo soxor waaye ki la def lii ma jël ko delloo ko ma ne ko déedéet mu ne ma bàyyi ki la def lii ma jël ko delloo ko ko nga xam ne kii la ko defoon ma ne ko barke Ahmadul Xadim bul ko def baal naa ko te yàlla tax ba de xam naa ko waaw ba ci waaw lamb ji laa laay dugg ci yor micro central ah nee na ma heureusement bi ngay dox di ñëw mu di ko sànni da ngaa wane ginnaaw bi nga wane ginnaaw la dal sa digg ah, ah, la dal ci biir stade Iba Mar bi mu la koy sànni hmm. yaa ngi ñëw yor micro bi mu la koy sànni da ngaa wane ginnaaw moo tax mu dal sa digg ginnaaw mais bu daloon sa xol doo ko nettali mais xoolal yu bari yooyu yooyu eh. yu bon yooyu ngay def doomu aadama hmm. ah nañu xoolaat suñu bopp suñu digganteeg rabu sama ard hmm. xam ne boo amoon cent ans bu neexee tabaaraka wa taala dinañ gas ba mu xóot ñu dugal la. mais papa liggéeyante bi nan lañ mën a def ba liggéeyante bi wàññeeku. du loolu du dañ sax nag mais mu wàññeeku. du dañ mm. du dañ xam nga wàññeeku bi mooy lan. Mm. gëm yàlla li muy am am solo wóolu yàlla ko solo mm. doomu aadama yi wóolootuñu yàlla dañoo gëm yàlla nii rek moo tax Sénégal ay jullikat bari nañ fi mais ay jullit bariwu fi de waaw vrai musulman bariwul Sénégal parce que jullit xol la xol. bu ca yéene ñëpp jàmm day yàlla di ca fanaan loo am mu doy la lu waaye am nga yéene ku ko ku la yéene jàmm-jàmm ngay am ku la yéenewul jàmm-jàmm ngay am loolu tax ma ne la du deñ nit ñi dañoo soxor bëgguñu doomu aadama romb leen lu toll ni tarfatar ay ni ah bëgguñu ko waaw moo tax Sénégal daal dañuy ñaan yàlla yal na yàlla yokk jàmm ji ah suturaal leen ay ndaw ngeen ah ay ndaw ngeen ay xale ngeen mais xale boo ci tàllal micro léegi mu ne la sama yaay laa bëgg a teral sama papa laa bëgg teral ku jóg nag ci li ngay yëngu nga ne samay waajur rek laa ci bëgg a jàppale bu neexee yàlla yàlla dina la jàppale yàlla na yàlla jàppale euh, may leen wér euh, ku ci amul borom kër yàlla may la borom kër bu baax bu la antal waaw bu la antal nag parce que attention waaw da ngeen a dayeeg jamono <laughs> jamono non da ngeen a jamono dayeeg jamono joo xam ne jamonoy partage la ah, ah, ah jëkkër ji naan la jëndal jënd naa ceeb jëndal diwlin bu ma joxe dépense tey nga joxe dépense ëllëg ah. te loolu du àddina ah dañ na ne njaboot boo leen yoree yiir leen mm. yor leen mm. yar leen kii nga yiirul yoroo ko mënoo ko yar mm. am na borom kër yu bari yoo xam ne yàlla dina leen duma bar sax ëllëg parce que jur doom sanni wala seeg eh, jigéen am ak moom ñett doom xëy wàcc ko bàyyi koog doom yee muy jóg ak daanu bu ñu jàngee xamoo bu ñu lekkee xamoo bu ñu bu ñu naanee xamoo boo demee bar sax yàlla dina la duma waaw jërëjëf. ñu koy sant bu baax mu nekkoon Père Niokhobaye kàddu yi am na solo ñu ngi lay.